asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di leen ñaanal jàmm di leen wax jumaa bu barak kàddu yi may yëkkati nag du kàddu pour yedd kenn du kàddu pour xas kenn itam waaye ay kàddu la rekk pour fàttali ñu li ñu bokk mooy sunu senegaal waaye itam bu taxaw wax ci li ne di am te coow li bare na kenn ku nekk mu ngi wax léeg-léeg danga naan sax xanaa du senegaal bii ma dëkk nii di ko dund xanaa du ci senegaal bii ñiy wër di wax xanaa du ci Sénégal bii lañu nekk ay nit nag mën nañu def seen njombe am seen bëgg-bëgg am seen yéene jàpp ni mën nañu wër di wax ba wëlbët ci ay fen def ko dëgg waaye loolu dafa fekk mu neex ñi yor seen ay nopp di déglu ak yor seen pët di xool dafa fekk mu neex sénégalais yi seen bopp na ci seen biir kër bu ngeen nangoo toog suba ba ngoon dégg ay nit jël ay fen di ko wëlbati ba ko def dëgg te kenn ku ne nangu kon bu ma yeboonee lu ñu dal ñoo ko teg sunu bopp ak lu ñu masa dal ñoo ko teg sunu bopp àdduna jaxasoo na waaye fii dara amu fil fu dara amu fil fu mësta am mais li mooy fen du doon mësa doon dëgg te bu doon xëy di waxal nit lu bon kese moo tax nit kooku bon kon kenn du baax kon kenn du baax parce que kenn ku ne am na ay nit ñu xëy ci yow di la tuumaale ki waxal wante dëgg mooy lu nit ñi di gis dëgg mooy lu nit ñi di seede bu loolu amutoon seede du am jàpp nañu usmaan Sonko tëj ko kaso parti bi mu bokk te nag moomu ko da koo bokk ak ay nit ñu ne dañ koy tas li parti bi moom ñu yëkkati ko ne dañ koy nangu foqati jaay ko ñëpp déglu ku ne toog di xaar ñu mën a wax ñu ngi wax waxuñu ne nit ñi jël génn bañ a lekk bañ a naan walla xaru waaye ku ne am nga kàddu kenn ku ne am nga kàddu rawatina nag ñi am kàddu te doon xëccoo kàddu te kenn ku ne naan ma ëpp daraja ci réew mi damaa am ci cër ci réew mi dama am wàll ci réew mi ba lu xew ñu wax ci ana ngeen lii xew ci réew mi lu ci seen xalaat am ngeen ci xalaat bu nekkee da ngeen jàpp ni yoon la li ñuy teg yépp jamono jii Ousmane Sonko yoon la wax leen ko Sénégalais yi xam ni loolooy seen xalaat dara du leen ci fekk bu fekkee jàpp ngeen ni du yoon lu ngeen koy ragalee wax ndax nguur gi te ñu ne ñun dëkk ay diggam lañu fu ñu toll naan nguuru yàlla rek moo dul jeex nañ leen seetaat bu baax a baax mbir yi ñu wëlbatiku ci loolu di wër plateau yi ak journaux yi ak xarale yi nga xam ni télé yi site internet yi ak yi nga xam ne daf fiy des ba ëllëg yëkkati ay kàddu yu foor di wax ne Ousmane Sonko terroriste la dafa bëgg nërmeel réew mi dafa bëgg réew mi tàkk dafa associé ak ay nitu musiba ak yeneen ak yeneen yi wax bu la gën a rëy rek ñu wax ko mbokk yi ñépp toog mbokk yi at yi weesu de ñu ak yéen a nekkandoo woon ci réew mi gannaaw ñi fi wàññeeku ñu ngi leen di jaale kenn raxuñu mbokk yi ndax déggoon ngeen wax yu rëy yi ñuy wax jamono jii di ko teg ci ndodd Ousmane Sonko déedéet mbokk yi boobu yéen a ngi doon dégg salafiste mbokk yéen a ngi doon dégg siifkat mbokk yi yéen a ngi doon dégg leneen ak leneen waaye déggu leen woon yi waaye mbokk yi lu xew rek ñu ñu ñu ñu yëkkati ko waaye léegi. yéen ñi nga xam ni dangeen ngeen ànd ak dëgg bëgg démocratie bëgg liberté bëgg Sénégal bëgg Ousmane Sonko bëgg Pastef bëgg Yewwi Askan Wi waa mbokk yi yéen da di toog di toog di seetaan ñuy tuumaal nit koo xam ni mbokk yi liñ koy tuumaal mosu ko ko gisal ngeen ne patt pattaaral du ngeen wax attention ëpp na wala boog mu ngi bëgg a ëpp wala wàññi leen. mbokki Sénégal du ma xas kenn ndax awma sañ-sañ boobu awma tolluwaay boobu ndaxte sama bopp rek laa mën a waxal waaye man di giñ naa ni ku ma xam xam sama jaar-jaar xam sama taxawaay xam sama démb ak xam sama tay xam ni bëgg Sénégal rekk ma fi moom ma fi teg bëgg Sénégal rekk a tax may xeex am yaakaar ci Sénégal mbokk yi am na ñu am leneen bëgg Sénégal ndaxte Sénégal gi suñuy waajur jur ñu ñu leen di ndamoo di leen tiitaroo mbokk yi ni ma sant santalewu ma ko sama bopp kenn ku ne ni nga sant santalewu ko sa bopp suñu boroom la ko defal mbokk yi looloo tax ñu jàpp ni réew mi dañ fee war a xeex réew mi dañ koo war a taxawal siggil ko ba ñu bokk ci réew ñi ndamoo ci àdduna kaddu bu fi ma bu ma fi yëkkati musuma fee woote ci samay mbiru bopp moo ne maa ngi ci samay yëfi bopp maa ngi sama business maa ngi sama liggéey maa ngi ci leneen mais mbokk yi musu maa yëkk dégg ma yëkkati kaddu jëmale ko ci samay mbiru bopp heure bu ma yëkkatee kaddu mbokk yi ci démocratie la ak ci liberté ak ci injustice ak ci Sénégal ndax loolu laa bokk ak yéen loolu laa mënul def dara yéen li ma dal moo dal Ousmane Sonko li ma dal moo dal ñu ne ci kasu bi yépp ñu jàpp leen man de yàgg naa xam Ousmane Sonko waaye balaa deux mille vingt et un man ma ko woon miinuma ko woon dafa nekkoon ci wàllu politique am man sama wàllu politique jotewuñu dara te suma ko déggal lenn lu ñagas ñuy doxu yàlla mbokk yéen man ak yéen a newoon ci réew mi man yéen a ci réew mi 2014 ba muy taxawal partem ba 2021 yëkkati leen seen loxo yéen ñi ko gisoon wala déggoon ko mu yëkkati ay kaddu de résistance bokk yi naaféq baaxul naaféq dafa xaraam waxuñu ci cadre diine mais dafa am lu sax ci ñun ci sunu yar moo tax léeg-léeg bu ñuy wax yëkkati yenn kàddu yi nga xam ni du kàddu waaraate de ndax gis ngeen diine ak yàlla mu ngi ci kune du ci jullit bi kese yàllan ci yéeféer bi yàllan ci ki ko weddi ñi ñuy wooyee nasaraan ak ñeneen yàllan ci ñoom de lii nga fekk ci ñoom gëm yàlla goo xamante ne danga naan am na kuy xëy suba di julli suba ba ngoon te gëmeewul noonu yàlla wala wóolowul noonu yàlla bokk yi naa fekk baaxul mbokk yi 2014 wala balaa deux 2014 bu Ousmane Sonko commencé liggéey impôt et domaine ba 2021 ana ku ko mës a dégg mu taxaw ne day jàmmaarloo ak état amul jàng na ba muy jàng kenn fekk na ko muy xeex wala muy woote défiance à l'état wala muy woote résistance sta am man de yëguma ko ku ko fekkewuma ko te ci réew mi laa dëkkoon ba muy def syndicalisme am na kenn ku ko fekk amul ba mu taxawalee partem di ko samp di ànd ak ay nitam di wax di nasa ki nocci waaye mbokk yi bu nu xëyee suba teg tuuma bu gën a ñaaw ci tuuma yi nga teg ko ci ndoddu gor gor laa wax de ku dul gor nag boo ko tegee tuuma yoonam new ci waaye gor nga teg ku tuuma yu toll noonu ni ko dangaa siif jigéen xale di di jóg di wax say njaboot di dégg ana lu gën a metti loolu mbokk yi ku la teg tuuma ju mel noonu boo taxawul jàmbaarloo moom wala nga taxaw résister nooy def waaye ba léegi wàccul yoon ndax mu ngi koy def ci cadre politique ci cadre public lu ne nag teg nañ ko ko léegi sax ku wax ñu tuuma la ñu tuumaal la ku wax ñu ñu jéem laa euh, dëkkal foo dëkkul ba mel ni daal ànd ak Ousmane Sonko déli la bokk Sénégal nañ delloo si suñu xalaat ak suñu xel ci réew mi lañ bokk ñoo bokk réew mi ñoo oh, bokk réew mi ku ñu teg tuuma yu tol noonu dafa metti ñetti atu yàlla ay xale yu ndaw ay nit ñu tekkiwul dara di xëy suba ba ngoon di wër plateau yi di la waxal lu ne di la sosal am nañu vidéo am nañu photo ay bu procès ba jotee ay lii ay lii nañu fàttaliku parce que nag léeg-léeg ñun dañuy bëgg nag di fatt sumu xel yi di tànqamlu tan xam lu bi dafa bëre ñu delloo si sunu xel fàttali dafa am solo bu leen fàtte ñaari at yi ñu génn riir bi amoon ci tey bu procès bi ñëwee tey vidéo yi tey li ñu yor aduna day këppu borom gémmiñ yi di boy ku ne di wax balaa procès bi ñu xam ne bu ñu demee dañuy nërmeeru ñu indi beneen dossier dossier diffamation bu tegu ci alalu Sénégal am ñu ci bind ay livre kenn wooyuwu leen moom Ousmane Sonko mi nga xam ni balaa boobu porte na ay plainte plainte bu kenn woowul kenn waaye moom daal bunguñ ko plainte plainte bi jàll fekke ngeen fekke ngeen askanu Sénégal fekke ngeen fàtte xaju fii wuyu jil fii laay jaar caxat-caxatee lacrymogène tënc dóori bal ay garde du corps gaañ ko gaañ ko jàpp ko dugal ko fii mu hospitalisé ñëpp a ngi fàtte ñëpp a ngi fekke ñu jóge ci loolu ñu yëkkati dossier Adji Sarr bi Sénégal yi ku ne téye sa nañ dem procès bu ñu demee day leer lu tax du dem procès par procès ba la leeree yàlla yóbbu ñu ba ci procès bi ñu sant yàlla ñu ñu yëkkati woon suñu kàddu depuis le début ni lii amul ki doon tuumaal jóg taxaw suba ba ngoon yendu ko ci tribunal di wax rek di yàq der rek tegul dara ci loxo sénégalais yi tegul dara ci loxo sénégalais yi lu dul wax ju salte dul wax ju ñaaw pour tuumaal pour ñaawal xale bu jigéen ba ca taxawoon bañ sénégalais yi umpule dara ndax yéen sénégalais yéen na nit ñu tàll ñun yéen rek ay suñu problème xale bu jigéen bi ñuy wax Falla Fleur de responsabilité am ne fii kenn du fi nettali lu amut lii am par minute dama koy wax ma nga ca kaso ba ñu jàpp ndax bëgguñu ko wax dëkk bëgguñu ku leen jottali bëgguñu ku leen yee yéen daal yi dañ leen jàppee nit ñoo xam ni talu leen dara lu di soxlay àdduna nguur gi fi nekk respecté wu leen jàpp na ni yéen luñ leen tegoo ngeen teg ko parce que yéen yéen a ngi lijjanti saay bi ngeen yeewoo ceeb ak reer kon daal nañ leen bàyyi ci seeni soxla bàyyi leen ci seen nelaw bu leen kenn xamal lu xew xale baa nga ca kaso ba tey mu def joxe information jar na tëj nit kaso boobu ba léegi procès ba ba léegi mbokk yi procès boobu am vidéo génnul photo génnul image génnul li waroon a tax nit ñi xeeb Ousmane Sonko li waroon a tax nit ñi jooy ñi àndoon ak moom li waroon a tax ñi deewoon rëccu li waroon a tax ne kii du nit ku baax dara génnul ay sos yi kese fa génn loolu waroon naa tax sénégalais yëpp jug taxaw yëkkati seen kàddu ne doy na doy na da ngeen a ëppal naan ay corruption de la jeunesse séduction de la jeunesse mooy dafa xiirtal ndaw ci bon dafa xiirtal ndaw ci bon ndaw bu taxaw ne man maa doon liggéey fu baaxul man maa doon soli slip ak i citien di def lu bon ñu ne moom moo ko xiirtal ci lu bon xëcc ko ci kër de xëcc ko ci appartement de ndaw boobu moo ne maa doon liggéey fu baaxul ñu ne moo ko ko fa xiirtal xëy na moo ko jëli dëkkam yóbbu ko foofu nekku ko kaay liggéey eh waay sénégalais ñun ñun ñun ñun looy sunu problème ñun loolu mooy sunu problème ñu jóge fa tegati ay wax wax waxewu wax ñu tegati ay wax ku ne expliqué wax ñu jàpp ni wax ci mën naa suula ci dëgg gi ñoom daal seen ay wax lañ yor pour suulee ko bépp dëgg waaye ba tey rek ñu ne ko bàyyi ne dañ ko day taxaw wuy si par force mune ne duma wuy si munu leen maa imposer ma taxaw fekke ay fen yu ñu teg ci sama der ndaxte respecté wu leen samay droit ndax bu may wuy si da ngeen may caxat-caxatee da ngeen may tànnal yoon da ngeen may violenter kon ñëwuma am naa ci sañ-sañ yoon may na ma ko bu fekkonte ne bu may ñëw da ngeen may bàyyi ma jaar fu ma jaar ànd ak samay avocat taxaw respecter samay droit damay ñëw parce que dama bëgg dëgg bi feeñ mais comme nangulu leen ma samay droit damay def li ma yoon may mooy ma bàyyi leen ngeen atte mu dem toog Casamance ñu atte seen atte dañ atte ba wax seen verdict mu ne baax na kon lii ngeen namoon ci man da ne dangeen ngeen maa atte gisuleen ma maa ngi ñëw def caravane de la liberté jóge Ziguinchor ñëw Dakar mbokk yi ñu dem jàpp ko yoonu Koungheul nekk coppet dugal ci oto kenn fekkewul ku dul ñoom ak suñu boroom ñu foto ko dugal ko ci internet bi ay force de l'ordre ñoo fa nekkoon ñu foto ko de foto ay carte d'identité foto ay passeport foto ay effet personnel lépp ñu dugal ko ci internet bi lii fi am yëpp am na fi man bu ma yeboo ni damay mujjee def scénario rek te ñoo créé seri Ousmane Sonko def ci ay épisode yi parce que nag seri Ousmane Sonko am na injustice ñu ko woowee kumba am ndey ak kumba bu amul ndey moom de ndeyam wax dëgg yàlla jàmbaar la Xadi Ngom ñu ngi koy ziar di ko nuyu di ko mastawu jàmbaar la ndax li yëpp ñu teg ko ci sa deru doom ngay déglu nga fekke waaye nga toog rek xam ni engagement am ci Sénégal moo tax bokki li yëpp am na fi ñu yëkkati ko jële ko foofu indi ko këram teg ko fa ñu ne déet na waaye ñu bloqué ko barricade tëj ko ci kaso kasob kër daanaka ñaari weer xañ ko demam ak dikkam xañ ko ay droit am xañ ko liggéeyam mairie xañ ko ay visit xañ ko lépp bokk ñu toog rek ñun de jéemoon nañu benn jour ne dañuy dem këram dindi barrière xamoon nañu ni mënuñu ko waaye dañuy jéem ndax mbokk yi jullit jéem la am lu sotti nag am boroom waaye lu sotti ñu sante ko yàlla mais dangay ngay jéem boo jéemee loo am baax na boo amuloo mooy nga dem tëdd xam ne yow def nga li nga li la war ak li nga mën ñu dem ca barrière ya wax bu sedd ñaan may leen saraxu expliquer ñu bañ du ngeen jàll barrière yi du dañ xanaa sax ñu xam ku ko fi teg lu tax mu teg ko fi ak bakkañ la ko fi teg amuñu réponse xam nga luy suñ tontu bokki Sénégal ay lacrymogène ñu dóor ñu ko gazé ñu tëll tëll ba paraay dañu ñaawal naa ñu dangeen naa daw waaye ñu ñëwaat toog rek ba tey bàyyi ñu di waxtaan ak moom parce que dañoo jàpp ni ci réew mi la bokk te kenn waru koo boddi mu toog këram nangu ko nag ak dignité di bind di xalaat di jokkook ak ñun di jokkook ay nitam ak i mbokkam ñu xëy suba def seen plan ñoom daal ay plan lañ ay plan kat lañu ay plan kat lañu foo leen fekk ay plan la ñuy def xam naa ni nag seen gisaane nee na leen lu ngeen di def lu ne dugal leen ci jigéen bu ngeen bëggee xëy na sarax yi mat ñu defati seen plan nan ko defee woon ci aji Sarr defaat seen beneen plan teg ay nit yu garder ay nit di ko surveiller mbokk yi nit ku ñu tëj fukki ñaari weer ci këram lundi ñu dindi ay barrière génnul lundi génnul mardi génnul mercredi génnul jeudi ba bisu àjjuma jeudi di bisu asura bisu julli julli suñu julli bi ñun ñii suñu fin d'année génnul bis boobu bisu ajjuma yomal juma mu ne naa dem julli ji muy sama bis génn bu jiitu mu génn dem julli ji ñu tegal ko ay problème indil ko ay situation buntu këram indil ko ay coow oto bu fa taxaw procureur ci boppam moo ne oto bi def papaan ay fan kon mbokk yi procureur wan na leen ni ñu ngi ko topp di ko sës di ko sës kooku ñu tooñ baaxul Ousmane Sonko dañu ko tooñ lu ko nit mënti waxal li mënoon naa am lii mënutoon warutoon am waroon na demee ne dañu ko tooñ yàlla moo ko bëgg suturaal ko ndax moom mënoon na def lu ëpp lii kenn ku ne na jël boppam remplacer ko Ousmane Sonko bu dem xool ay ku mu doon nu mu tudd jël leen seen bopp rek li ma leen fi wax lépp lu mu daj ak lu ngeen fàttaliku yéen ngeen teg ko ngeen teg fa yeen seen bopp ngeen xool bu doon yéen la nan ngeen di def seet leen loolu ñu nekkete buntu leen doon wut ndaxte pexe ni laloon yépp antuwul ndaxte même bañ ko barricade atte ko ci seen biir atte bi mënuñu ko ci daan mënuñu ko ci tëj i fale beneen yoon buñ ko jàppee bokk tëj bii ndax bii buñ ko ci tëjee dañuy perte ñoom ne kon acca dañ leen ko xool lañu wax ay waxi sàcc ci téléphone mbokk yi keroog àdduna reetaan àdduna yëpp a ñu ne Ousmane Sonko chef de l'opposition dafa sàcc ci téléphone benn femme daf ko ñor di def ko buddi ku ne ne loolu mënoon naa ñàkk ñu bare wax ko xëy na ñëpp yemuñu image dafa metti mbokk yi sa image say doom ay doom ak ay soxnaam politiku ñu lu tax ay nit di ko photo ak ñoom war leen divulguer war leen feeñal du yoon ndax moom ba léegi day sàkku réew mi rek de mais joxagu leen ko Sénégal ba war koo moom ba vie privée mu war a nekkaat vie publique bis bu yoree réew mi nag dootul am vie privée ni ko Macky Sall amutee moom yoragul réew mi te ñeneen ñi fi nekk ñu bëgg réew mi kenn posté wu ci buntu kër kenn di ko filmer vingt quatre heures sur vingt quatre di xool kuy dugg ak di xool kuy génn bokki vie privée sutura moo tax yàlla defar guddi ak bëccëg li ñu ko teg kan ci yéen moo koy nangu ku ne ci ñun bu gisoon nit ku taxaw buntu këram gaar taxaw fa ay fan suba ba ngoon demul dina ñëw fëgg ko ne ko jàmbaar loo fiy def bu dee doo police mun la jóge fi bu dee police nga mu jël huissier constaté ko parce que amu leen droit bi mais Ousmane Sonko respecté wu ñu benn droit am te ñàkk respecté droit bi yëpp yoon bi nga xam ni yow ak man ñoo ko bokk moom la ñuy teg ci kawam ñu jël ko daj ji këram caxat caxatee waa këram jàpp ko yóbbu sénégalais yi toog bis boobu maa ngi koy fàttaliku ñii am mbetteel ñii am lu leen metti ñeneen ñi toog wërkat yi ñoo ñi bëgg a soppi fen def ko dëgg wër palaato yi yéen a ngi fàttaliku jamono yi lu ñu doon wax Ousmane ko dafa dil ak ak sàll dafa waxtaan ak Macky Sall ñoom ñaar déggoo nañu am na ku dem ca kër ga am na ku gontu fee am na ku demee nële am na ku demee ne lii yëpp ay affaire contimence la waxtaan bu juboo la dañoo bëgg a yëkkati mbir mi pour Ousmane Sonko bokk ay ay ay ñun fu ñu jëm ñun yàlla bu fekk ñun toni fen yi ñun ñi fen ci réew mi moo moo gàllankoor réew mi ba réew mi du dem waaye yéen fen yi ñu koy génnee di ko wàccee ci réew mi yéen da ngeen foog ni day génn ci ngelaw mi nii rek dem bëri na bëri na bëri na bëri na bëri na bëri na ñu wax ko fi ñëpp toog jommi ne ah mën na am kon lool la ndaxte mënuñu tëb tëb rek jàpp ko noonu barrière biñ ko dindee dañ ko def exprès nangam nangam mbokk yi ñëpp nekk salaw ko ne di déglu ñu dem ba ba samedi ndekkete araam ba mu xëyee moom procureur mu taxaw daal dina dama koy toppee juróom-ñaari chef d'accusation mooy juróom-ñaari mbir laa koy toppee juróom-ñaari mbir yooyu mu daal koy lim daal ne lii ñu wax ni mbiru foqati téléphone taxul lii buntu la rek bu ñu jaar pour egsi ci moom waaye dañ ko naroon a jàpp ndaxte il faut mu wax ndax mbir yi nee na depuis 2021 la mooy ban ko commencé tuumaal moom procureur ma wax loolu pour yéen yow mi ko déggul pour yow mi nga xam ne say nopp dafa fattoon fan yi lii moo fi xew waaw lii moo fi xew ak yeneen xëy na am na lu ma fàtte waaye ma wax ma wax ci li li ma ci li ñëw sama xel donc procureur ne loolu laa ko toppee te bu ngeen fàttali ko bis biñ koy caxat-caxatee euh, di ko yóbbu tribunal ma fekke woon man ak Guy Marius Sagna bis boobu dañu waxoon ne itam moom day créer ay trouble te day defay ay appel à l'insurrection bu leen fàtte ni dossier Mame Mbaye Niang bi tuddoon nañ ci sax loolu waaw waaye ñu ne dossier bu bees la comme sénégalais dañoo ne ñoom dañoo naax yoom lu waaye indi wax leen mu dugg ñoom daal dañoo naax seen xel yi day fattu procureur mi nga xam ne yàgg na fee wax waxu terrorisme yéen yéen itam <laughs> yéen procureur bi muy wax terrorisme xam ngeen kañ la luwaa bi changé dugal terrorisme ci suñuy mbir dem leen ngeen xoo Google bis boobu man ak euh, Clédor Sène ñoo demoon ànd ak ay xale dem manifester bële ci place de l'Obélisque parce que dañoo sentiroon terrorisme bu tëbuñu tëb rek wax ko am na fu ñu jëm boobu fii lañ jëmoon fii lañ jëmoon ñu dem keroog bu ngeen fàttalikoo danoo jàpp Clédor Sène vidéo yaa ngi circulé am na ñoo xam ba léegi dañu foog ni léegi la man ma jóge fa ànd ak Assane Diouf ak ñeneen dem commissariat central ki ñuy wax commandant Saliou Ndaw mbokk yi jote fa ak man ba gaañ ma cicatrice baa ngi nii du dañ mukk ba faw ba faw du dañ bis bu ne dama koy fàttaliku gaañ ma ci loxo sama loxo bi foq ay fan ma sonn waaye taxul ñëw naa fii toog def ak yéen live won leen seedeloo leen bu ngeen demee sama page di ngeen ko gis bu ngeen demee sama page di ngeen ko fa fekk xanaa ku bañ a fàtt ku bañ a fàtte ku bañ a fàttaliku waaye ku bëgg rek lépp a ngi fi ñun bu internet amutoon kon ñu sànku ndax kon dañuy wax rek ba mbott génn suñu gémmiñ waaye kon kenn duñu wax ni preuve a ngi nii te li ma leen di wax lépp mu ci internet bi preuve yaa ngi fi mbokk yi ci la président Macky Sall changé ñu jël terrorisme dugal ko assemblée nationale ñu daal di koy changer voter loi bi ci ci assemblée nationale ndax foofu liñ ci jublu woon mooy waaja lii ko ngeen xam ni lii yëpp la ñu ne loolu lañ ko toppee jàpp ko teg ko loxo bisu dimanche mu tàmbali grève de la faim foofu nag lay mujjee grève de la faim bi soo Sonko tàmbali Ousmane Sonko xam na ni moom jullit la du xaru du xaru ndax yàgg na wax d'accordul ci grève de la faim waaye Ousmane Sonko bépp xalaat wala ngànnaay wala wax wala taxawaay bu mu amoon pour xeex président Macky la pour xeex régime bi pour xeex arbitraire pour xeex injustice pour xeex li ñu teg ci kawam def na ko ba tey n'empêche ko loolu yëpp mu def terewul nguur gi déroulé li mu bëgg ci kawam mu topp nag li yàlla wax ndaxte nit buñ la tegee lu la metti da koy xool noo ko xeexee dama koy bañ nit du nangu nooteel déedéet nangul ndogalu yàlla na yàcc ña yasar loolu wolof njaay moo ko wax yàlla waxu ko senegal nag dañuy jaawale waxi wolof njaay defaat ko waxi yàlla bare na fi bare na fi de Kocc Barma wolof njaay nee na ñu wax wax bi yàlla waxul loolu loolu moo ñu indi suñu différence des fois ak ñi nga xam ne dañ leen di woowee ñu ñoo xam dañoo topp diine ba mu ëpp parce que ñoom topp ñu wolof njaay ndax ñoom dañoo ne ñoom ñoom doomu aadama lañu ne dañuy topp wolof njaay wolof njaay lu mu wax rek loolu la def suñu culture nag wolof njaay wax na lu bare lu yeete wax na lu bare lu am solo waaye wolof njaay wax na lu bare loo xamante ne dafay tax nit ñi yaafus na yàcc na yasar duñ leen tegoo ñu ne noonu la ndogalu yàlla yàlla mooy dogal du yàlla bëgg nit mënu ci dara jaam de yàlla rek moom moo moom moo mun def nit dara nit munu ko def dara te moo ne chaque jour ngeen dem ci sëriñ yi di ñaan kii def maa def lii na ma ko yàlla dindil xool leen contradiction bi mais ñun la rek macha allah xam nañ yàlla suturaal ñun la rek ñun ñun la rek ñun ñoo ne yàlla rek mooy dogal lu yàlla nit mën ta su jàmm ba nit dañuy rey doomam comme xale bi démb ci scooter bi maa ngi koy ñaawlu di ko naqarlu ak yeneen i xale mais da gis ñoo xam ne seen doom day faatu sax du ñu taxaw ne nañu laaj justice dañ naan yàlla moo ko moo moom yàlla moo ko jël te yàlla jël bakkan ne bu ne dafa am fu ma koy jaarale ne ñun la rek léeg nag lu gën a bëre dañoo gëm yàlla wóolu yàlla mais léeg-léeg wolof njaay ak Kocc Barma dañuy dañuy jël seen expression di ko jaawale ak li yàlla santaane dëgg-dëgg bokk yàlla moo wax buñ la tegee loolu dëgg da ngay taxaw xeex da fippu te booy fippu li nga am ci ngànnaay moom ngay fippoo Ousmane Sonko jëmmam la am ak ngëm-ngëmam mu démarré grève de la faim bu metti ndax ba mu koy démarré bu leen fatte ni bis biñ koy jàpp dafa wooroon bis biñ koy jàpp lekkul bis boobu xëyu suba ba ngoon lekkul ba dix heures ci guddi la ko nijaayam jibi ngay jaay door a yóbbul ndogoom ndaxte nanguwuñu ko am ku ñu egsi ci moom waa mbokk yi loolu da ngeen ko bëgg a fàtte xanaa kuy waajal grève de la faim sax di nga toog lekk ay fan ba dëgër nga door a démarrer moom moom daf ko fekkoon ci koor dafa wóoroon lii fekk ko ci kon déjà mu nekk journée boo xamante ne yaramam dafa éprouvé wu ndax loolu suma koy wax dafa am ñoo xam ne ah moom de jàppaguñ ko sax mu commencé sonn waaye il faut ngeen xam yoon bi fu mu jaar mu jóge ci loolu entamé grève de la faim ndaxte boo nammee dundu ci dundu boo xamante ne dañ lay teg lu metti te yow doo taxaw wan sa bopp suñu boroom doo taxaw xeex ko kon liñ la teg dagan na grève de la faim ku yeboo xam ne dafa metti Pape Ali itam mu ngi ci ngi koy ñaawlu di ñaan yàlla mu dakk léegi léegi léegi léegi mais de la faim boobu dafa am jeexintal ci santé wante foog naa ni santé bi gën a am solo ci nit mooy santé mentale mooy santé moral te loolu dañ ci teg Ousmane Sonko ay épreuve depuis ay ati at ñun ñii ñëpp dañ ci teg ay épreuve ñun bu ñu toggee fii ba léegi di wax wér na cocc sax ñun dañoo war a xam ne dangeen war a xam ne ñun am nañu ndimbalu suñu borom ndax liñ ñu teg lépp ñu nangu ko am na ñu ko doon teg fa tey ani lu toll nii dof nañu bu yàgg dof nañu bu yàgg sol nañ sol nañ seeni sagar di dem mais ñun ñu ngi dékku rek toog continuer di xeex continuer di résister continue di wóolu Sénégal di am yaakaar bu rafet donc Ousmane ko def grève de la faim ñu teg mandat de dépôt yóbbu ko Sébikotane man seetiwuma ko te damay ñaan itam mbiru seeti boobu ñu tegandi ci suuf ndaxte ñi bëgg Ousmane Sonko ñëpp buñ ko naree seeti ji kon de moom xamu fu mu jëm ndaxte bu naree suba ba ngoon muy muy muy ñi ko war a seeti ñëpp xanaa fa lay jaaree faatu ndaxte du nelaw du noppalu te kaso dafa metti xam nañ ci dara ñun teg nañ ay at ñuy seeti Karim Wade ci kaso bi Karim Wade biñ koy jàpp Sénégalais yëpp dañoo toog di seetaan ay benn benn ñoo ko doon seeti ak i nitu PDS mu dem ba ay adduna yi nit di jóge fu ne di ko image imagine Ousmane Sonko bi nga xam ne adduna yi nit dèjà ñoo ko topp bu ko nit ñi commencé seeti waxuma la nag ak dañ kumpa yeeg ñi nga xam ne dañuy ñëw pour da wax nettali dañuy ñëw pour seet te c'est pas le moment ku nekk grève de la faim affaibli ndaxte rek il est affaibli ngeen xam ko noonu pour ñii di tànqam lu laay wax ñii di tànqam lu ngeen yëg ne grève de la fin boobu commencé na am njeexintal ci yaramam ndaxte demuñu fa mais ñu ngi jokkoo ak ñi fa dem ndax ñu ngi wax lafa am ak nu fa tolloo ñu ngi amee information mu ngi commencé am jeexital ci santeem santeem nag mu ngi incombé à l'état du Sénégal ñoom ñoo yor santeem seen responsabilité la ndaxte jëg nañ ci ku ne te dañoo gérer seen santé tëj nañ ci ku ne te dañoo gérer seen santé Karim Wade tëj nañ ko fii mu yore box boo xamante ne kat naa sécuriser pour añam ak reeram ay ati at dara daalu ko dañ ko surveiller normal jox ko tout le confort nécessaire confort strict minimum en prison on peut pas avoir du confort mais strict minimum pour le rang bi ñu occupé parce que du ñu n'importe qui soo jàppee Karim Wade wala nga jàpp Khalifa Sall wala nga jàpp Karim Ousmane Sonko mënta doon n'importe qui ndaxte sonn nañ fi mbubbu député nekk nañ fi ay ministre am na lu ñu représenté ci réew mi jiite ay parti kon danga leen di jox seen àq ak seen yelleef ba mu mat sëkk c'est pas parce que deux sénégalais moo am mais ku nekk ak li nga liggéeyal Sénégal samba booy bi sàcc foqati def lu bon ta bokk ak nga xamante ne dafa liggéeyal réewam c'est pas pareil surtout ku nekk en fonctionnaire génni anam liggéeyal impôt et domaine liggéeyal Sénégal kooku dañ ko war a respecter yëkkati ko teg ko ci niveau bu mu war a tegu ñi ko bañ ba bëgg ñu toroxal ko ñooñu yal na leen yàlla toroxal tot ndax képp ku bëgg sa moroomu jullit torox yow doo nit ku baax yow nit ku bon nga nit ku yées nga nga teg ci nekk mag war a wër di wax lu ñaaw di wax lu salte di yéene ay nit lu bon am na ñu dem ba yéene na radier ñëpp ñu ànd ak Ousmane ko ñu nekk ci administration bi comme si ñooñu duñu ay sénégalais yenn xeetu mbon yi ku ko bon man yéem nga ma ku ko bon man ngeen ngëm man li ma dund ci régime u Macky Sall ma am xol bu soxor ci envers ñoom ma ko parce que yàlla def ko ci sama xol waaye torox tàngi gi ngeen yéene nit ñi yéene néeg la borom ma cay fanaan yal na sunu borom bi lépp lu ngeen yéene nit ci lu baax ak ci lu bon yal na borom bi tegal leen ko ba mat sëkk man i tamit ak ñu ni tamit lépp lu leen yéene ci lu baax ak ci lu bon yal na ko yàlla teg sunu kaw yéene wuñ leen dara lu bon li ñuy xeex lépp pour njëriñu Sénégal grève de la faim boobu dafa commencé am jeexintal ci santé ba mu commencé affaibli l'État doit prendre ses responsabilité waaye Sénégalais yi tamit da ngeen a war a yëg xam bu kenn tànqamlu Ousmane Sonko ni mu commencé politique dañ daan wax nañu moytu li dal Cheikh Anta daal ko nañu moytu li dal Mamadou daal ko nit ñi di tànqamlu kilifa diine yi kilifa aada yi sénégalais yi citoyen lambda yéen ñëpp na ngeen ko yégee noonu man daal ku ne yëguma woon lay bañ man barewuma jot de ñàkkuma fayda itam barewuma wax itam amuma leneen lu may def <laughs> loolu ngeen foog maa am lu may def maa ñàkk jot waaye damay wax bàyyi fi ndaxte yemuñu ci Ousmane Sonko ñun ñi ñëpp dañ ne dañuy traqué à tout moment mën nañu jàpp jàppuñu pour lan bu ñu jàppee nag ngeen xam keroog ne nag wax ji leer na ndaxte bu fekkente ne ku ne Pastef ngeen ne ñoom Pastef ñi la ñuy def ñun de lañ doon def 2011 ba léegi moom lañuy def taxaw ci injustice. kon suñu jàpp mooy tout simplement seen aveu seen aveu de dictature complète parce que mën ngeen jiiñ ay nit dañoo def wala dañoo wax te du dëgg sax. jiñ leen ay kaddu yu ñagas ni ñun mënuñ leen ñu ko jiñ parce que ñu ngi fii di wax ak yéen sénégalais di seetaan te kenn mësu fee gis ñu wàcc ci yoon. grève de la faim boobu dafa am ci moom jeexintal ci santeem bu leen ne yëgu leen bu leen ne yëgu leen ay jullit lañu ay senegale lañu ay catholique lañu ñoo bokk suñu réew nit ki leen xeexal. ay at liggéeyal Sénégal taxaw ngir bëgg jot ci réew mi changé ko kooku lañu nekk di teg ay métital fee mu ne ngeen yëgee ko noonu ngeen yëgee ni ku grève de la faim danga jig dinga jeex ku grève de la faim di nga sonn dina am ñu ne waa mooy moom moo choisir grève de la faim lu muy def leneen ah dangeen bëgg mu nangu mu xëy suba ndékki añ reer tëdd toog jàpp njàmburam ne la vie continue ne Sénégal jaru ko ay Sénégal fi ñu jëm fan la ñun sénégalais nañu xoolaat suñu bopp nañu xool liñ bëgg nañu xool liñ bëgg réew mi mën naa baax de réew mi mën naa baax yàqugul ba tey metti na nag jamono yi jafe-jafe réew mi mën naa baax ci kaw ñu ne ci réew mi am ngor am jom am taxawaay bu mat ah li nekk di am nii yal na yal na am mujj bu rafet yal nañ ko nettali ci jàmm ak salaam nga xam ne ni jàmbaar mu ngi xeex xam ne ni góor piir mu ngi xeex xam ne ni bañkat dëgg mu ngi def li ko dese ci arme mooy jël ci yaramam jël ci suuxam jël ci santeem jël ci wér-gi-yaramam ngir senegal ñàkkoon na alalam ngir senegal ñàkk na liggéeyam ñu rajee ko ngir senegal ñàkk na deram bu rafet ñu tuumaal ko waxal ko lu ne ngir senegal ñàkk na leneen ak leneen loo xam ne man xëy na sax mënuma ko wax ay soxnaam xam nañ ko ak keneen ak keneen xam na ko ay mbokkam yu ko gën a jege ñoo gën a xam sacrifice yi mu ci def waaye jamono ji mu ngi nekk di ñàkk wér yaramam mu ngi ñàkk kattanam mu ngi ñàkk énergie am li ko dese muy ngëm-ngëmam yéen nag yéenay taxaw xëy na wax ba mu bañ ñàkk bakkanam ndax su boobaa ñun ñëpp dinañu am gàcce dinañu am gàcce gu rëy du ngeen xam fu ngeen koy waxetee yàlla bu mu am yàlla bu mu am waaye kenn ku nekk am nga ci responsabilité may fàttali soo ko jiitewu fi grève de la faim yeneen politique def nañ ko fi Karim Wade bis bi muy def grève de la faim bi bi ko dog mu ngi jóge tuubaa ci sëriñam moo ko indi ñaan ko bu fekk ne itam moom fépp na xeex na woolu na justice jël ay avocat fay leen di dem tribunal bis bu yàlla sàkk di xëy di toog ay weer yaayam di toog papam di naqarlu ay weer ñuy xëy di gontu di xëy di gontu ba ñu demee ba brutaliser ko gaañ ko ay waay fàtte xëju fii waaye nii rek lañ leen di bàyyi lu am tey rek suba leneen am ngeen fàtte la woon démb ba ñu ko gaañee ca ca ca fañ koy atte nit ñi di xataraayu te la décider def grève de la faim grève de la faim c'est une arme politique ku dem ba xeex ba amatoo sañ-sañ loo xeexee loolu ngay xeexee parce que c'est l'ultime résistance mais c'est pas parce que nit ki day def grève de la faim que dafa bëgg a dee wala dafa bëgg a xaru ba ngeen ko bëgg a mettre sacrifier ko wala mettre ko en danger day def grève de la faim c'est un appel c'est un c'est une situation ok léegi nit ki taxaw toll ci jamono ci ci niveau boobu kenn du wax itam dañuy xaar ba mu feebar kenn du wax itam dañuy xaar ba mu faible kenn du wax itam dañuy tànqam lu daal dañuy tànqam lu dañuy tànqam lu dañuy lu waa ba kañ ba kañ la ñuy tànqam lu surtout ñi yor kàddu man lay waxal ana ñi bëgg démocratie ak liberté ana ñi bëgg l'état de droit ñu tas Pastef comme ça la vie continue kenn ku ne yor sa parti nga jàpp ne yow comme tas nañu Pastef Pastef bokkoo ci sa parti man de bokkuma Pastef musuma fa bokk mais l'injustice quand on la fait subir à des individus ceux qui se réclament démocrates et et et et défenseurs des droits de l'homme doivent se dresser doivent se lever doivent s'organiser doivent se battre ana ngeen bu Ousmane ko nekkoon ci biti de taxaw ba léegi di nga gis ñu bari ñu ñëw ne ci wetam ana ñu ana ñu ana les démocrates du ngeen ci wax du ngeen ci wax du ngeen wax ci recul démocratique bi nekk di am du ngeen wax ci liquidation bi nekk di am les maires de Pastef nga xam ne c'est des sénégalais ñoo leen fal def leen ay maire ñu leen di décapité di leen jàpp benn par benn ñoom et ñoom Jamil Sané Maimouna Dièye Bilal Diatta ñaata maire ñoo ne ci kaso bi mais ne serait-ce que par respect aux Sénégalais yi leen fal war na tax ñu dem leen def leen sous contrôle judiciaire ba ñu xam diñ leen diñ leen ba bisu at ñu xëy dem àtte ji parce que ce sont des magistrats de leur ville de leur commune mais fan la ñu nekk dans quel Sénégal on est ñuy jàpp benn par benn bu ñu jógee ci maire ci député yi leen jëm de ñu nga xam ne Sénégal ñoo leen dénk seen kàddu ba léegi yëgu leen li xew wala déggu leen est-ce que sama baat mu ngi jàll yàlla baax na ñu pare ci loolu arrestation yi ni mal Mali ku ñu xalaat ni dangay jege wala dangay wax ñu ne nañ la nañ la arrêté nan la jàpp eh baaji don ah bu leen ñu rëcculoo bu leen ñu jooyloo bu leen ñu yabluloo ñi am kàddu ana ngeen ana ngeen ñi wooye seen bopp ay kilifa ana ngeen maa ngi remercier ñi nga xam ne ñu ngi wax ñu ngeen di gis ñu ngi leen di dégg ñu ngi leen di remercier jaru ko sax parce que seen bopp ngeen ko defal comme man mii ñi may remercier ak di may féliciter jaru ko de man li may def defaluma ko Ousmane Sonko sama bopp laa koy defal dama bopp laa koy defal ndax sama engagement la sama gëm-gëm ma reste ci sama constance ku nekk victime ma taxaw xeexal la xëy na suba su ma ko nekkee dina am ñu ma taxaw xeexal waaye dalalu leen sama xel de bu fekkee tànqamlu bii ngeen di tànqamlu kon bu boobaa bu moytuwul dañ naan ay waay aka mënoon a musóoru aka mënoon a musóoru dinañ namm musóora mi de ku ci musóor xëy na dem ca internet ba xool ko fa <laughs> xanaa jigéen ñi du ngeen ma def noonu laa xanaa sax di ngeen takk ay musóor sax fu ngeen romb ñu xam ne xëy na man ngeen di jàppale xanaa kay war ngeen takk sax baraakaar rouge ay brassard rouge wala ay brassard Pastef pour solidariser ak Ousmane Sonko wane ne moom ngeen di jàppale dëkk bi dafa xatte bu ñëpp waxoon rek dëkk bi réer kenn waxu leen ngeen génn xeex wala ngeen toj wala ngeen manifester wala ngeen taal dëkk bi déedéet man santuma leen lool de man ngeen wax laa wax ngeen génn ngeen wax dëkk bi yëngu ñu xam ni àdduna yëpp xam ni Sénégal dëkk bu am jom la Sénégalais bañ nañu lii loolu dong lañ bëgg xam nga lu tax histoire daf ñu yey ndaxte dëkk bii di Sénégal ci la maison des esclaves nekk maison des esclaves mooy këru njaam yi kër gi ñuy denc jaam yi buñ leen di jaay te kër gi jaam fi doon denc bu leen di jaay dëkku dëkkuñu Sénégal rek de dañ leen doon jëlee Gabon Guinée euh, Congo yeneen dëkk yépp lañ leen doon jëlee di leen indi fii fii lañ leen di dencee ci ci ci ci néeg yi fii lañ leen di takkee jéng leen fii lañ leen di dugalee ci gaal yi pour dem loolu nag dafa am symbole ndax lu tax ñu def ko ci dëkk bii di Sénégal gore lu tax defuñu ko beneen dëkk est-ce que ñeneen ñi dañ doon bañ est-ce que ñun dañoo nangu wala ndax dañoo jege rek géographiquement xaw ma en tout cas àdduna am na histoire bu ñu tegal dañ ko war a dindi histoire boobu surtout ci suñu société bi gis nañ fi tamit waronte dafa bëri jaayante bi dafa bëri nit day xaritoog nit sax jaay ko ndax dara te ñooñu tamit dañ doon jaay seeni moroom ngir alal ak ay seetu waa léegi dañoo war a tontu histoire pour won histoire ne ñun won histoire ne ñun euh, duñu ay jaam te sunu maam yooyu ñu jaayoon dañoo ëppoon doole moo tax ñu jaay leen ay nit ñu am valeur lañ te pour loolu premier acte bi jikk mooy yëkkati sunu ay kàddu yëkkati sunu ay kàddu fexe ba ku mënul xeex nga teg nga sol sax lu xonq wala lu am lu xonq ci sa yaram bis bu yàlla sàkk wala nga takk sa brassard waaye surtout nga wax wax leen ñu mënta wax ñu bind ñu mënul bind ñu wax ñaari rekk am ñaari yi moo am ndax ñun man xam naa sénégalais ndax ñun ak yéen a réew mi dëkk bi dafa metti am na ñoo xam ne ñemewuñ sax ngelaw bay ñeme bay ñeme dee wala bay ñeme gaañu su caaginu seen yaa fus de mais xëy na noonu la leen yàlla bindee loolu suñu sagu ñu mel ne araab yi nga xam ne biñ leen bëggee teg tool yi ñoom ñëpp dañoo génnandoo ci benn place ay adduna nit taxaw ba nguur gi tiit mais nguuru Sénégal xam nañ ni Sénégalais tu def noonu bu ki xëy di wut dépense kii di xëy di wut lu mu xewee keneen ki di xëy di wut lu mu teralee keneen ki di xëy di wut lu mu mu defaree këram ku nekk ak soxlaam parce que ñu jiital mooy àdduna moom lañu jiital ci suñu Sénégal gëm nañu ni nit mënta toog xiif ay fan Ousmane Sonko moom mu ngi wane nii lekk ak naan du mooy tax nit dund li lay dundal ci sa ruux la nekk fekk loolu mu ngi ci sa biir ruux yaa ngi dund moo tax mu arrêté lekk beeg naan bi li dund ruuxam nag mooy ngëm-ngëm te ngëm-ngëm boobu nag mu ngi ci kenn ku nekk ci ñun en tout cas ñi ko bëgg a ànd ak moom fekk ta suñu yaakaaram fekk ñoo ngi wax fekk ñoo ngi taxaw dina ko yëg du ko yëgul ñu wax ko ko sax da ko yëg ci yaramam ndax nit ku tëdd fii sax ay nit toog fële ci fees di la ñaanal danga koy yëg kon yéene ji dina ko yëg te gannaaw dafa am ñu ko yéene lu bon ñu ko bëgg nañ ko yéene lu baax ndax mu mën a def différence maa ngi yemale foofu waxtaan bi di soññaat kenn ku nekk rek di leen joxaat di daje di kenn ku nekk di wax ne yedduma kenn xasuma kenn waaye xëy na am naa kàddu dinaa wax pour ñi yëgul pour ñi xamul ñi may seetaan ak di ma topp ngeen xamee ko noonu li ma leen wax lépp moo am jàmbaar daanuwul de mu ngi xeex ba tey mu ngi xeex ci li mu mën ci yaramam ci kàttanam mu ngi grève de la faim waaye loolu dafa commencé am njeexintal ci santé kon nag ku bëgg mu ne ci jàmm war ngaa yëkkati sa kàddu nga wax bu kenn lu aduna nag mu ngi seetaan nit ñaa ngi leen di seetaan di xool nit ñaa ngi leen di seetaan bu baax ku ne yaa ngi xool sa morom foofu la réew mi toll ku ne yaa ngi xool sa morom ñi wax dinañ leen dégg ñi waxul dinañ leen xam ñu pare yàlla ñu fi fekk bu ñu fekkul tam suñu doom dinañ leen wax li fi amoon dam fi am naka la ci nit ñi taxawee woon ak lan moo fi amoon ak lan la Sénégal décidé on est face à l'histoire on est face à l'histoire ce n'est pas parce que Ousmane Sonko dafa gën ñu nekk ci kaso bi c'est parce que lañ ko teg ba mu egg ci kaso bi teguñu ko kenn ci ñoom bu doon dañ koo jàppoon rek depuis ba muy politique ne ko coppee teg ci kaso bi kon heure bi génn na dañuy wax comme gracier comme moroomam bi mais moom dañ ko teg métit sur métit te ci métit boobu yëpp ñu ko teg mu ngi doon continuer di xeexal ay ñoñam di xeexal yeneen acteur politique foofu lay tëjee acteur politique yooyu tey ñoo ngi révisé le code électoral ngir ngeen bokk bokk bi ñu leen ñaanal yéene leen ko projet de loi bi ñëw na assemblée nationale tey di ngeen ko waxtaanee ci commission ngir ngeen bokk fexe leen ba bu ngeen di bokk ki leen xeexaloon ngir ngeen bokk bu leen ko boddi bu leen ko boddi projet de loi bi da ko war a bokkaale wa ilaa rek war ngeen Sénégal waru leen ko moom de sénégalais yi leen yóbbu assemblée ngeen wor te nag wor benn nit sax ku ko def feeñ atantuma wor askan lépp kon nag vous êtes face à l'histoire projet de loi boobu yàlla na aboutir yàlla na aboutir ba Khalifa Sall bokkaat ci jeu politique bi Karim Wade bokkaat ci jeu politique bi mais def leen ci ay amendement ba Ousmane Sonko bokk ci élection yi c'est ça la vérité su ngeen ko defulee war ngeen l'histoire war ngeen Sénégal ndax lii taxutoon ñu xeex ba yóbbu leen assemblée nationale intercoalition bi ak député taxaw ak député yi nekk foofu yépp lay waxal ak député yeew yi ngeen xamee ko noonu ñu ngi xool ngi ubbi suñuy bët di xool yal nañu yàlla may mubarak